màggalal ko boppam yokkal ko boppam ba mu nekk barab yu bëri yu mel nii suñ borom mën na ko yomb na ko yal na yàlla may leen ndam te su boobaa ndamul umma bi la léegi nag yéen ndaw ñi yéen la ñuy bëgg a waxal Shawqi <coughs> euh, bu jo bu ja bu jàkkaarloo woon ak ñu mel ni yéen da daan wax ne taalibil ilmi halumu waxmilu abha alam alam al ilmi li yasmu qadruna bayna al umam أيها النشء الجديد أنت آمال البلاد وبك الماضي يعود وعليك الاعتماد yéen ñii nga xam ne yéen la seen wayjur yi tànnal yoonu sàkku xam-xam raaya ji ngeen yéenu mooy raaya ji gën ci raaya mooy raaya xam-xam xam-xam bi gën ci xam-xam yi la moom ngeen di sàkku bu sàkku beneen bu dul bii yéen a ko gën lu ngeen di sàkku da ngeen xam seen bopp bu baax suñ borom subhanahu wa taala dafay yebal ay malaayika saa yu ngeen xëyee jëm ci jàngu bi ngeen yëg ngeen ñàkk yëg yëg leen ne yéen a ngi dox ay malaayika di suufeel seen mbagg ya ngir màggal li ngeen yoon doomu aadama nag bu fekkee daf di lu tuuti di xale su tuuti malaaka di wàcc ci suuf wàccee ay mbaggam boofal ko kooka màgg na te malaaka yaa ngi leen di boofal kon xam leen li ngeen doon bu baax seen way jur yi li tax ñu tànn lii xam nañ ko ëllëg yéenay delloo si waa démb insha allah waa démb ci yéen lay dellu see wa bikal maadi yaud maadi sahaaba maadi nabii sallallahu alayhi wa sallam maadi anbiya maadi rusul salawatullahi wa salaamu alayhim ajmain bi kunna al maadi yaud maadi saydatina khadija radiallahu taala anha ما دي سيدتنا عائشة رضي الله تعالى عنها وما دي الصحابيات الجليلات اللاتي كن حول رسول الله صلى الله عليه وسلم dém bi saxaaba yu màgg yooyu ci yéen lay dellu see incha allah kon na ngeen gën a góorgóorlu bu baax gën a jàpp ñii nga xam ne ñoom la leen suñu borom subhanahu wa taala wërsëgal ñu seen i jàngalekat <coughs> na ngeen leen teg seen place ba nga xam ne fa la leen seen borom subhanahu wa teg fa leen yàlla teg tey ci kaw suuf tegut fa keneen kon nag góorgóorlu leen ngeen teg leen foofa nangu nangu leen a déglu ndigal lépp lu ñu leen digal góorgóorlu leen ci lu leen tere ba leen bu jàng jotee bu leen am soxla ci leneen lu dul njàng bu kenn ci yéen di juum ci heure njàng di wax ak moromam déedéet bu leen ko nangu jàng rek bu heure nopp lu jotee nopp lu rek bu boobaa incha allah ñoom danañ am ndam dañuy gàttal nag wax ji lool ndax dafa am yeneen i barab yu ñu war a jàll suñu xol fees na dell ak bégte fii moom ëppoon naa ñàkk a jaar suñu xol fees na suñu xol bég yenn yàlla àggale liggéey bii ñuy liggéey ci seen ci seen ci seen i xol di ko liggéey ci seen i xel di ko liggéey ci seen i cër yàlla ko suñu borom àggale